Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa rasulullah. Aujourd'hui, euh, l'équipe de Sakuyu Action pour l'Espoir donc a eu à faire une descente dans la région de Thiès, au fin fond du village Ngemme Wolof. Donc, pour procéder au lancement du puits euh, Razou Samir. Nous allons écouter les témoignages du coordonnateur qui va procéder en discours devant les villageois. Euh, asalaamaaleykum wa waaw tey ñun dañoo ñëwoon fii seet leen ñu bokk ci benn association bu tudd Sakku Yiw euh, Sakku Yiw nag association la boo xam ne dafay dox ci àll bi di jéem a xool naka la ñuy jàppalanteeg euh, villageois yi daal. ci loolu nag ci lañu am suñu benn xarit bu ñu contacté xarit boo xam ne waajuram dafa génn àdduna mu buggoon ko defal teen xam nga loolu dafa bokk ci li nga xam ne yeneen yàlla sam digle na ko. donte ne picc yi naan nañ ci sax te maam ni ki da ci am tiyaaba loolu nag moom moo waral suñu mbokk mi bëgg a defal mbir mi waajuram mu tombeek nag ñu wax ne seen dëkk dañoo ñàkk ndox danoo soxla teen ñu ne kon dana jaar ñu andi ko fii nga xam ne fa lañ ko gën a soxla parce que ko fi def li ko gën a yitteel mooy na nit ñi naan ne nit ñi am ndox waaye ndox bi bañ a dagg ndox bi di ko ay ati at nit ñi ko jëriñoo parce que loolu rek la jublu xamu leen ku xamu leen amaana du fu ma sa ñëw naan ndox waaye yéene moom mooy rek waa population bi incha allah ñu am ndox moo xam ne dana leen doy sëkk daal su ko defee nag tiyaaba yi gën a bari ci moom gën a bari tamit ci ay waajuram. Voilà, alhamdulillah, on a eu à, écouter le coordonnateur. Maintenant, on va euh, donner la parole aux villageois pour qu'ils fassent des témoignages par rapport à ce puits-là. ci kàddu sëriñ bi waaye ci kàddu daara ji waaye tamit ci kàddu waa dëkk bi yëpp muy chef de village ak ñëpp. góor ak jigéen ñëpp ñu ngi kontaan bu baax a baax di leen dalal di rafetlu jéego yi bu baax a baax di ñaan yàlla yal na yàlla mottali yëpp. boo soxlaa ndox jëmale ko ci ndongo yi wala nga jëmale ko ci taalibe yi wala mu jëm ci biir dëkk bi day nekk loo xam ne da ngay takk sareet dem jëli ko fu sori kon lii am na solo lool kon nit ñu ngi ciy sant bu baax di ci sant ki nga xam ne nii nag moo am yéene bi financé lii. di ñaan yàlla yi tamit yal na yàlla barkeel lépp lu mu ci namm yal na ko yàlla def yàlla am na yiw moo ko mën yal na ko yàlla defal yiw daara ji it macha allah bari na yum soxla lool bari na yum soxla ndax ndongo yaa ngi fi te it am na loo xam ne nii moom mooy téye daara ji kon yooyu buñ ci amee ay ndimbal day am solo lool. dëkk bi ñëpp a soxla ndox waaye nag daara ji rawati ci daara ji nag tabaarakallaahu ñu ngi ko fi maanaam mu ngi sosu ci 1900 boobaag léegi yàgg na yiw wu ne nag gis nañ ko fi waaye nag wii yiw tabaarakallahu wu rëy la ndax it kii def ta yàlla tax bëggu caa feeñ loolu yiw la te yiw woowu mu yaakaar nag ngir yéene ko ay waajuram yàlla na yàlla jottali leen ci yiw yi waaye ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bii mu taxaw waaye yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax sëriñ bi wax na ko léegi daara ji itam dafa bari ay aajo yu mu aajo woo yi mu aajo woo bokk na ci fi ñuy jànge néeg la boo xam ne néeg bu ndaw la te bu ñu sañoon am mbaar moo xam ne dina yaatu ñu mën caa jànge wala ñu am ay école boo xam ne dinañ ci mën a jànge di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñu andi lii fii ñu soxla ko torom nag ndax ndox dañuy manqué gis ngeen teen bi dafa yàqu bi yàqu bala ñu am ndox dañuy takk sareetu mbaam di dem ci làkk yi fii di rooti léeg-léeg nga takk dem fekk koog rooseet ndoxam ba mu jeex doo am ndox da ngay jëlaat say bidon andi ko ñu sonn ci torop nag kon nag bu ñu amee lii moom dinañ ci dinañ ci kontaan torop di leen ci gërëm yéen ñi nga xam ne bii yéen a ko fi andi ñu ngi ñaanal ki nga xam ne bii moo ñu ko may yàlla lim ci bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal waaw yal na yàlla yàggal taxawaay bi yokk tuyaaba ji nga xam ne bii moo tax mu andi ko fii def ko fi. Vous avez entendu les témoignages euh, des uns et des autres donc le puits a été très bien l'accueillir parce que euh, ce sera une aubaine pour la population de pouvoir bénéficier de ce, ce puits-là. L'emplacement du puits aussi a été, a été très bien réfléchi parce à côté, il y a malheureusement deux puits qui ne sont plus fonctionnels, donc c'est des dépotoirs d'ordures. Et à côté aussi, on a une madrasa Donc euh, les, les, enfants qui apprennent le Coran donc, en auront besoin parce que l'eau va dans un premier temps servir les populations mais aussi ça pourra les aider aussi au niveau de leurs actes d'adoration. Donc la fasse que euh, les bénédictions et tous les hasanats donc, soient versés pour le compte euh, du défunt. Donc qu'Allah fasse que ça illumine sa tombe. Donc nous allons vous donner rendez-vous Inch'Allah prochainement pour procéder à l'inauguration de ce puits. Barakallah